ba fi ñu toll ni looloo fu mu sa am moo tax justice bi jël ko di ko instrumentaliser ku ñu bëgg mu nekk kandidaa mu nekk candidat ku ñu bëggul mu nekk candidat du nekk candidat ci élection donc séparation des pouvoirs boobu moo ko mën a indi loolu dootul amati ñu xool ne suñu conseil constitutionnel gis nañ ne euh, mooy dernier rempart tey justice mooy dernier rempart bu problème yi amee et donc war nañ ko dooleel dooleel ko bokk na ci ñu xool ñan ñoo ca war a di nekk ñu koy tànn ak lu ñu leen di tànnee ak dooleel leen ba ñu xam ne dañuy gën a am indépendance moom seen bopp ñu fa nekk. Euh, beneen bi mooy le conseil supérieur de la magistrature euh, mooy ñu yore carrière magistrat yi war nañ xool lu ñuy def ba nga xamante ne eh bien kenn du leen mën a teg loxo duñ leen mën a chantage duñ leen mën a sanctionner parce que dañuy def seen liggéey te loolu bokk na ci ñu xool nan la ñuy euh, ñan ñoo war a nekk conseil supérieur de la magistrature ensuite nan ban rôle lañ ko ci war a jox waxuñu ñu ne nañ ko ci génn carrément mais mën nañ ci def rôle boo xamante ne du tax mu mën a eh bien am teg loxo bi muy teg magistrat yi. donc bari na aussi yeneen ponk yoo xamante ne war nañ ko waxtaanee gis nañ fi les longues détentions ñoo xam nañ leen di jël tëj leen te jugé guñ leen bàyyi leen ci kaso bi ay ati at ñu leen jugé yooyu muy wax les longues détentions bokk na ci aussi li ñuy wax article 80 ku jug rek ñu jël tëj la ne la da ngaa da euh, tooñ président. tooñ boobu kenn du wax lan la leerul muy wax offense au chef d' état wala kuy jox exercer lu tollox lu chef d' état jox ay ay ay ay pouvoir bu dee loolu kay même délégué quartier yi bu loolu même ministre yi eh, am na ay pouvoir jóge ci moom yu jóge ci nguur gi ñëw ci ñoom donc yooyu xeetu tëj ndax eh, ay wax loolu war nañ ko war a dépasser mun ut yeneen xeetu daan aussi yoo xam ne parce que du prison moo war a nekk dernier dernier recours mën nañu jël yeneen xeetu daan pour ay wax jëm ci ay nit. absence de volonté politique manque de volonté politique moo tax saa yi ñu génnee ay yoon yu ñu war a mën a jaar pour defar suñu justice bi du dem gis nañ fi def nañ fi commission nationale de réforme des institutions def ci alal yu bëri jox euh, euh, kii mbaw mu diriger ko bi mu paree dañ ko jël def ko ci tiroir. gis nañ rapport 2018 bi mu paree am na ci am solo ci génn dañ ko jël def ci tiroir donc problème bi moo tax ma ne warul nekk benn dialogue de plus benn dialogue buy ñëw yokk ci li mu dialogue rek dafa war a nekk dialogue boo xam ne day indi yokkute ci suñu justice. voilà ay lool lu koy waral mooy mu am volonté politique mooy tey jii li Diomaye président Diomaye wax mu am.